mars ci atub ñaari junni ak ñaar fukk ñaar ñetti fan dafa bokk ci lim yu fàtt yi konte ci altine ji rafetul ñaanuk bis bi yow sama borom yàlla na nga ma jéggal yàlla na nga ma baal yow yaay baalekat bi tey yërëmekat bi rabbi xfir li watub alayya innaka anta tawaabu rahim xadiisu bis bi yonent bi salallahu alayhi wa sallama nee na ku joxe njël ci yoonu yàlla dees na ko fulal tuyaaba ja juróom-ñaar téeméeri yoon xadis bi an nisaa yi moo ko génne qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam man anfaqa nafaqatan fi sabilillah kutibat lahu bi sabaa miati diaf axrajahu nisaa'i liman